li ñuy def nii dañ koo ragalul dañ koo def ak xam-xam dañ koo def ak man-man dañ koo def ak pas-pas dañ koo def également ak ànd ak ñoo xam ne kenn ku ci nekk boo ko joxoon Sénégal sax mu yóbbu ko waxuma laak nag dëkk bu tol ni Mbour ñu def ko tamit ak bëgg-bëgg bëgg-bëgg bi mooy juddoo Mbour yaroo Mbour màgge Mbour amuñ dara dul Mbour lu ñu am Mbour dem ci kanam moo ñu ko gënal te liggéey bii ñuy liggéey tamit jeunesse bi moo tax ñu koy def ak jigéen ñi sunu dëkk bi dafa war a nekk une ville d'opportunité mooy dëkk boo xam ne ku am xam-xam liggéey ku am man-man liggéey ku am pas-pas liggéey ku am ay pexe liggéey te boo liggéey am xaalis dafa war a nekk dikk bu dëkk boo xam ne ku bëgg jàng boo gëstoo rek di école bu baax boo mën jàng dëkk boo xam ne ku sa yaram sutante doo dox lu sori pour mën a faju dans de bon conditions dëkk boo xam ne boo génnee sa kër rek di nga fa fekk tali ak trans système de transport bu baax boo xam ne da ngay taxaw ato taxaw nga dugg dem fi nga bëgg a dem dëkk boo xam ne quatre heures du matin boo ci amee soxla dinga mën a génne en tout sécurité te dëkk boobu nag mbuur mérité na ko dëkk bii nii mooy dëkku Serigne Saliou Mbacké. mooy dëkku Ahmad Lamine Daabo. mooy dëkk Thierno Mansour Baro. dëkku El Hadj Gorgui Wade. dëkku El Hadj Ahmad Wade. dëkku Tafsir Demba Sall. dëkku Cheikh Thiéfaye Diouf. dëkku Cheikh Amadou Lo. dëkk boo xam ne si benn période lu mat quarante wàllu yi ñu ngi fi doon yeewoo. ñooñu nag kenn warul bàyyi seen dëkk bi muy continuer di mel nii mu mel waaw. dañ ko war a taxaw ba képp kuy nooyee Serigne Saliou Mbacké boo xoolee dëkk bi nga am mbégte màkk noonu mu mel ñaanu yont yàlla Ibrahim yi ak ñaanu Seydina Mouhamed yi moo tax mu mel nii mu mel ba mu koy mel fekku leen fa kon Serigne Saliou Mbacké fan yi mu fanaan fii si dëkk bi ñun ñëpp ku nekk war nga takku taxaw pour que dëkk bi ñaan yooyu mu doon ñaan sunu papa yi fekk ko bala ñoo wuy ji loolu moo tax ñuy rey sunu bopp ci lii ñu nekk ñu bëggoon képp kuy jeune nga bàyyi ñu xel bàyyi ñu xel mooy bu ñu ànd ak ñun si sa neexu bakken ànd ñoo ñun si dëgg ànd ak ñun si pas-pas ànd ak ñun si xam ne ñii kat caaxaan ak fo taxu leen a jóg bu ñu jëlee maire bi duñ changé kër bu ñu jëlee maire bi duñ changé oto bu ñu jëlee maire bi ñu changé doxalin parce que loolu yëpp yàlla dimbali nañu si avant ñuy jóg di dem di seeti maire bi pour defar dëkk bi te dañ koy def nag ak bilan te mosuñoo yor dëkk bi ñun liñ taxaw si ay de classe maire bi defar ko ko defar si mur école bu daanu mairie bi defu ko liñ jàngal ci ay élèves mairie bi defu ko cours de vacances gratuit dix mille élèves lañ mujjee ci sunu ci kii bu mujj mi amul benn équipe bu nawetaan buy fëgg sa armoire dafa fekk sunuy mayo amul benn équipe kii nawetaan si Mbour amul benn équipe première division deuxième division nationale. bu masolo am sunu jàppale. amul benn jàkk si Mbour. boo xam ne au moins sunu cent mille francs demu ci. ak Mbour nu mu yaatoo 42 quartiers. loolu nag ak daayire màggal dañuy teg sunuy oto ak sunuy ceeb. poroxaan gaa ngi nii ñu ngi koy commencé préparer dispositif bi yëpp teg nañ ko pour gunge ñu war a dem poroxaan yaa ngi dégg loolu nag boo dee amee ay nit ñoo xam ne ñu ngi koy def si biir dëkk bi te kenn dexu ko kenn voté la gu leen kenn jàppalee gulen leen kenn gunge gu bu ne leen jox leen ñu suñu dëkk bi ñu defal ko war ngeen kaa mën gëm ku la jox ndékki jox la añ bu la duggé ab reer war nga kaa mën gëm suñu dëkk bi nak nañ bàyyi caaxaan yi te ñu defal ko dëkk bi dëkk bu mag la de du deug dëkk bi moy 3e poumon économique bu Sénégal nekk entre deux stations balnéaires à côté de la zone industrielle de Sandiara près du port multifonction de Ndayane à vingt minutes de l'aéroport de Diass dëkk boobu waruñ ko seetaan nañ ko taxaw ñu liggéey ko ñu jàppante bàyyinte xel moment bii nag moment crucial la boo xam ne ku nekk da nga war a jël ses responsabilités am na ñu mën def li ñu def nii sol cap sol t-shirt dem mais am na ñoo xam ne c'est des hommes d'influence te bu fii amee nit ñi da leen di laaj candidat yi nag koo si xalaat bu boobaa ces hommes d'influence là nañ joxoñ fi ñu war a joxoñ nañ joxoñ Benno Bokk Yaakaar